تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نومي سنت برام تبارك وتعالى جل جل بي صلى الله عليه وآله وسلم بيكتي نيوب الإسلام nuyoo jullit ak moroomam te mooy ñaan sunu boroom mu defal ñu mucc ak yërmande ak bàcceem di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ko xamee ba nga ko defee noonu diiru lël bi tàmbalee ba tey muy bu ñu tolloo wi ñu jagleel ko ay fàttalante ak ay waxtaani diine yoo xam ne nii danañ ci mën a jëlee ay lay noonu lañ ko fas yéene continuer insha allahu tabaraka wa taala tey jii nag ginnaaw dawra bi dafa jëm ci wàllu alquranul karim ak mbir yi aju loolu moo tax ñu thème boo xam ne gis nañ ne am na ak jote lool dawra bi li ko tax ak ci fànn bi nga xam ne ci la jëm ci at mi muy lu ñuy tuddee hajrul quran mafhumuhu wa mawahiruhu wa xuturatuhu maanaam songu alquran dakk ko bàyyi mooy lan ak yan mbir moo koy wane ak yan lor mooy yi ci mën a juddul tomb boobu moom la jël fas yéene cee fas ak suñuy mbokk jullit jox ko sunu kilifa sunu sëriñ di koo xam ne yëngutoom ci toolub diine yëngutoom ci woote jëme ci lislaam yëngatu bu dëkk la yal na ko yàlla barkeel te dolli ko kattan ba yéene li mu am ci lislaam amu ko ci jullit yi yàlla may ko kattan ba loolu mën a dëgg suñu mbokk mi de ak Cheikh Ibrahim Khalil Lo moom moo ñu war a fàttalante ak ñun ci biir tomb boobu ñu wax léegi muy hajrul quran mafhumuhu wa mawahiruhu wa xuturatuhu kon jàpp naa ne juróom yu sori yi di ko xamle dañu koy daal di jox kàddu bi dama dugg ak ñun ci biir waxtaan boobu su ko defee ku am lu muy laaj lu jëm ci tomb bi sëriñ bi waxtaane mën na ko bind ci aw këyit su ko indee sëriñ bi dina ci tontu kenn bi ko yàlla borom bi tabaraka wa taala mu bind kon ñu ànd ko déglu a ko teewlu ci ma taataan li nga xam ne moom la sëriñ bi di ruusal ci ay njëriñ yal na ko yàlla dëgëral ba dugg ci yéene bi bismillah yéene ci alhamdulilahi rabbil alamin kon a cheikh tafaddal mashkuran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 sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha xaqa tuqaatih wala tamuutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء wattaqu allaha alladi tasaaluuna bihi wal arxam inna allaha kaana alaykum raqiba ya ayuha alladina amanu ittaqu allaha wa qulu qawlan sadida yuslix lakum acmaalakum wa yaxfir lakum dunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima amma baad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 ayuha alikhwatu alkiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh maa ngi sant borom bi tabaraka wa taala di ko dimbandikoo di ko jéggalu di ñaan mu musal nu ci suñu ayu bopp ak suñu ñaaw tee fi jëf di seede ne amul benn buur bu ñuy jaamu mu yeyoo jaamu ga ku dul suñu boroom tabaraka wa taala di seede ne Muhammad ab jaamam la ndawam la yàlla dolli ci moom ay xéewal ak i ak mboolem ku ko topp gannaaw loolu ñu di leen nuyu di leen ndokkeel itam ci lël bi ngeen nekk muy ak tàggatu nekk ak fàttaliku fàttalante ci ay bind waaye fàttalante itam ci ay jëf ak ci ay melokaan ndax jullit bi dund ci wetu mbokkum jullitam loolu ab nafar bu rëy la ci moom bunt bi nga xam ne nag moom la ñu war a waxtaane te mu dugg ci bunt bu yaatu bi nga xam ne moom ngeen jagleel lël bi te mooy alquranul karim muy bunt boo xam ne bu jar di waxtaane la bu jar di fàttalante la bunt bi ñu nu ci dénk nu war a cee ko mbokk mi doon ubbi jotaay ji waxee si Abdul Xaadir hajrul quran mafhumuhu wa mazahiruhu wa maxaafiruhu mooy hajjurul quraan mooy dogu alquraan wala bàyyi alquraan loolu ban déggin am ak yan màndarga moo koy màndargaal ak lan mooy ay loram ay musibam insha allah loolu mooy buntu waxtaan wi euh, ñu bëgg cee fàttalante teg yéen suñu kam kàttan waaye bunt la boo xam ne bu yaatu la bu naqaree xam léppam la ci tàmbali bi danañ fàttalikoonte gi yéen makaana bi nga xam ne wàccuwaay bi nga xam ne moom la alquran am ndax bu buñ dee wax nit dagg na nangam te mooy sila mooy jokkoo bi waroon a am ak moom amatu ca loolu la ñuy tuddee la koy waral léeg-léeg xëy na dafa xamul loolee muy dagg daraja ba mu am ak gëdd ba mu am ak wàccuwaay ba mu am alquranul karim mooy waxi suñu borom tabaraka wa taala ji mu wàccee ci ab yonentam muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa suñu borom tabaraka wa taala di yónni waat beneen mel ne alquran mooy kàddu gi suñu borom tabaraka wa taala mujj a waxanteeg bindeef yi amul beneen waxante bu muy waxante waat ak ñoom gannaawam loolu rek doy na ci ñu war koo yittewoo war a xam wàccuwaay bi nga xam ne moom la am ndax suñu borom bi ñu bind andi nu fii ci kaw suuf wax ñu ne da ngeen jël siwaat fi man ma régler seen nekkin wi ngeen nekkoon ci kaw suuf ba xam dëppoo woon na ak ni ma leen ko digale woon wala déet te namu nu ko digale yépp mi ngi ci biir alquranul karim te amul beneen wax bu muy waxaat nag gannaaw alquran moomu kon ku gëm ne da nga teew ca e, daje boobee suñu borom bi tabaraka wa taala wax qul inna al awalina wal axirin la ila miqaati yawmin maalum waxal na ñu njëkk ñeeg ñu mujj ñëpp leen dajale ci datub bis boo xam ne bu ñu xam la suñu borom tabaraka wa taala moom xam na ko alquranul karim nag suñu borom tabaraka wa moom rek moo ko peeg ci xam darajaam ak wàccuwaayam ndax dafa nekk melo ci melokaani suñu borom tabaraka wa taala te melokaani suñu borom tabaraka wa doomu aadama mu koo feeg lam mooy la ca borom bi tabaraka wa taala xam le wala yuxiituuna bi cheyin min ilmihi illa bi ma sha waaye nag bokk na ci ngëneelul suñu borom ak yërmandeem mu leera nu ci maggaayu alquran ak wàccuwaayam loo xam ne danañ war a soññ ci ñu xër ci jàpp alquranul karim bokk na ca loolu mënu leeral ci mbirum alquran xamal nañu ne téere bii mboolem lu ci dikk dëgg la gu bàyyi ko fi suñu borom tabaraka wa goo xam ne benn sikki sàkka wala dara lu ñuy werante nekku ci wax ne dalika alkitaabu laa rayba fii boobu la téere day di alquranul karim dara ci sikki nekku ci loo ci gis rek lu wóor la lu wér la ca lam wax bu dee lu ñuy jëf wala bu dee lu ñuy baax dana wax ne wa ma kaana hada alquranu an yuftara min duni illah walakin tasdiqa alladi bayna yadayhi wa tafsil alkitab la rayba fihi min rabbi alalamin nee na alquran di nekkul lu ñuy dóor wala di ko sos te fekk bàyyi koowul ci yàlla waaye téerab alquran kay dafa ñëw di dëggal li nga xam ne moom la fi fekkoon ci téere yoo xam ne jiitu woon nañ ko bàyyi ko ci suñu borom tabaraka wa taala di ko faram-fànce di ko leeral mu ne benn sikki sàkka nekku ci ndax mi ngi bàyyi ko ci ki nga xam ne mooy borom bindeef yi delloo xam ne maa kaana xadisan yuftara walakin tasdiqa allati bayna yadayh wa tafsila kulli cheyin wa hudan wa rahmatan li qawmi yuminuun suratu yusuf nee na nekkul wax bi ñuy sos waaye dafa ñëw di dëggal li mu fi fekkoon di faramfaj lépp nag wa tafsila kulli shay nekk ak njub ak yërmande ci nit ñoo xam ne gëm nañ borom bi dala wax ne wa laqad sarrafna linnaasi fi hada alqurani min kulli masal fa abaa aktaru nnaasi illa kufura suratul isra mu ne faram fànce naa leeral naa ci alquran bi mépp misaal moo xam ne dana tax nit ñi xam suñu boroom tabaraka wa taala joxe na ci misaal daraballahu masalan bari na lool ci alquran waaye nee na li ëpp ci nit ñi rek gàmtu sax rek ci ak weddi alquran ak ñàkk koo topp mu dellu waxaat ne wala qad sarrafna fi hada alqurani linnaasi min kulli masal wa kaana al insanu aksara cheyin jadala suratul kahf mu ne faram fànceel naa nit ñi ci alquran ji mépp misaal muy tax ñu xam waaye nit daal moo daq a daggee moo daq a werante te mooy nit koo xam ne gëmul dafay mën a werante dafay mën a diingat borom bi dellu xam ne ne téere bii day neen wala caaxaan du ko jóge ci kanam du ko jóge ci gannaaw ci li weesu la mu fay wax kenn mënu caa génne dara loo xam ne da nga naan baatil la lay ñëw ca kanam itam lam tay wax doo dem mukk ba gis ca loo da nga naan neen la wala wuute na ak nam ko waxe woon suñ boroom wax ne wa innahu la kitaabun aziz laa yatihi albatilu min bayni yadayhi wala min xalfih tanzilum min xakimin xamid suratu fussilat boroom bi ne téere bu tedd la téere bu mag la caaxaan neen du ko jóge ci kanam du ko jóge ci gannaaw ndax dañ koo wàccee mu bàyyi koo ci borom boo xam ne bu xereñ la borom boo xam ne bu ñu sant la suñ borom doon lañu xamal ne téere bii dañu ko leeral nañ du téye bu ñu lëm rek waaye dañ koo leeral faram-fàcce ko leeral ci lépp loo xam ne lu doomu aadama di yittewoo la te am xelam ak jumtukaayam yi ko suñu borom jox mënu ko caa xame loola suñu borom tabaraka wa ci mbaaxam yërmandeem mu leeral ko ci téere bi ba xam ne duutoo ci am coono di ci jéem a xalaat ndax boo ca doon jéem a xalaat itam doo ko mën a xamal sa bopp wala qad ji'naahum bi kitaabin fassalnaahu ala ilmin hudan wa rahmatan li qawmi yuminuun borom bi ne dikke naa leen téere boo xam ne faram-fàcce naa ko leeral naa ko leeral bu tegu ci xam-xam muy ak ngëb di yërmande ci nit ñoo xam ne gëm nañu yàlla borom bi gën a wax ne kitaabun uxkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin xabir nee na téere la boo xam ne ay aayaam dañ ko xereñ dañ ko ixkaam amul dara loo xam ne luñ koy mën a wëlbati la amul dara loo xam ne luñ cay mën a yokk la wala luñ cay mën a wàññi la waaye na mu mel rek noonu la mel la mu wax loola la wax te lu jamono yàgg-yàggit lam doon tegtale rek lay tegtale mu ne leeral nañ ko nañ mu bàyyi koo ci borom boo xam ne xereñ la bu deñ kuppal suratu Hud borom bi dal wax ne wa nazzalna alayka alkitaba tibyaanan li kulli shay wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin wàcce naa ci yow téere bi leeral ci lépp tibyaanan li kulli shay mu nekk ak ngëpp nekk yërmande waaye nekk mbégte ci jullit ñi kon téere la boo xam ne suñu borom tabaraka wa moo baaxe doomu aadama yi wàcce ko jàpp ndalal leen yoon li nga xam ne moo leen di may texeg adduna ak texeg àllaaxira lépp mu def ko ci téere leeral ko itam ba mu leer nañ yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne laa xasada illa fi snatayn rajulun aataahu llahu alquran fa huwa yaqumu bihi ana alleyli wa ana annahar wa rajulun aataahu llahu maalan fa huwa yunfiquhu ana alleyli wa ana annahar rawahu muslim yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ñee day ñeetaan bu doon am ci dara ci ñaar rek la war a am moo jar ñee waa joo xam ne yàlla jox na ko alquran mu jàng ko xam ko ci ko jëfe guddi ak bëccëg mbiram yépp mu teg ko ci alquran ak waa joo xam ne yàlla jox na ko alal ju lew mu di ko dundalee ci yoonu yàlla guddi ak bëccëg nee na ñaar ñooñu rek ñooy ñi nga xam ne ñoo jara ndax ñooñu la borom bi tabaraka wa taala dig ne seen yëngutu ba ñuy yëngutu yaxantu la goo xam ne suñu borom la ñuy jëndanteel te seen marchandise du lamb inna alladina yatluuna kitab allah wa aqamu salaa wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniya yarjuuna tijaratan lan tabur ñii jàng téereb yàlla bi di taxawal julli di dundale seen alal ci lu nëbbu ak ci lu feeñ mu ne ñooñu day seenub yaxantu du lamb ndax yàlla moo koy jënd te yàlla moom buy jënd du waxaale te moom moo lay fixeel prix ndax moom moo xam li nga yor ci marchandise valeur mu am yàlla moo ko xam yow sax xamoo moo tax mu ne li yoo fiyahum ujurahum da leen di fay fay ga ba mat wa yazidahum min fadli ba noppi nag mu dolli leen innahu xafurun shakur yàlla rek moom muy jënd di fay ba mat muy dolli waaye ñeneen dañuy wàññilu waxuma dolli waaye dañuy jéem a wàññilu amma nag hajrul quran lu am la ndax suñu borom tabaraka wa taala wax na ci alquran ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàmbat na ko wala dana ko jàmbat wa qaala arrasulu ya rab inna qawmiya ittaxadu hada alqurana mahjura suratul furqan aya fanweer suñu borom ne yonente bi day wax na ne yow sama borom sama nit ñii de jàppe nañu alquran jii muy la ñu dagg muy la ñu muy la ñu wan gannaaw loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam jàmbat na ko diis ko suñu borom tabaraka wa taala cheikh Mouhamadul Amin Sinqiti rahimahullah mi wax ci adwaul bayaan ci aaya bii ne wa fiha asamu taxwifin liman hajara hada al quran al azim mu ne aaya bii day ragalloo gu mag tiital gu mag mi ngi ci ñeel koo xam ne dafa dagg alquran wan ko gannaaw mu ne falam yaamal bima fihi min alxalaali walxaraami wal aadaabi walmakaarim naka la wane gannaaw alquran mu ne jëfandikoo li ci nekk ci lu dagan mu daganal ko li alquran ne moo dagan mu nangu ne moo dagan li alquran ne moo xaraam mu nangu ne moo xaraam te nangu ga mooy nga ba ko waaye doone nangu naa ne lim ne xaraam na araam na ba noppi ne ca kon nangu woomu mu ne walam yaatatid ma fihi min al aqaid bokk na ca wan gannaaw alquran itam fasoo pas-pas yi nga xam ne moom la alquran jàngale ne lii lañu war a fas tawxid bi mu jàngale nga yor beneen fas-fas bu dul moom loolu itam ci dagg alquran la bokk walam yactabir bima fihi min alzawajiri walqisasi wal amsar nee na te waaruwul ci li ne ci alquran ci yuy gàjjee ak ay nettali ak i misaal yi la ci alquran waaru ca yooyu yëngalu ko soppiwu ko kon kooku dagg na alquran ibnu kathir rahimahullah ci tafsiram moom itam ci aaya boobu mu ne wa tarku ilmihi wa xifdihi min hijraanil qur'an nee na bàyyi jéem a xam alquran bàyyi jéem koo mokkal wala mokkal ca sa kenn kattan nee na loolu bokk na ci dagg alquran wa tarkul imaanihi wa tasdiqihi min hijraani mu ne bàyyi gëm alquran ak dëggal li alquran di wax nee na bokk na ci dagg mu ne wa tarku tadabburihi wa tafahumihi min hijrani nee na bàyyi jéem koo dégg di ko settantal nee na bokk na ci dagg mu ne wa tarku alamali bihi wa imtisaali awamirihi wa ijtinaabi zawajirihi min hijrani bàyyi topp ndigal yi ci ñëw wattandiku li ci nekk ci ay tere bàyyi jëfe li ci alquran nee na loolu bokk na ci dagg ko mu ne wal udul anhu ila gayrihi min shi'rin aw qawlin aw ghinaain aw lahwin aw kalaamin aw tariqatin maxfuuda min gayrihi min hijraani mu ne wëlbatiku wan gannaaw alxuraan jëm ci la leen moo xam woy nga yittewoo wala ay wax wala ay woy yu ñuy di ci neexal baat yële shi'ar la ay poème wala ay zina wala daal ay wax ay garante wala yeneen yoon woo xam ne mi ngi bàyyi ko feneen nee na nga jàpp loola ba bàyyi alquran nee na loolu bokk na ci dagg alquran loolu boo xoolee tafsir ibnu kasir ci aaya bii da fa gis mu wax fa wax jooju kon mafhumu maanaam ni ñuy déggee hajrul quran balaa leer ci ñun dëgg-dëgg dañuy xam li nu war a séq ak alquran maanaam buñ nee diw ba na diw mooy la mu waroon a séq ak moom loola la defatul donte ma ngay séq ak moom sax ci ak anam waaye anam ga muy séq ak moom du gam waroon a séq ak moom loola du tee ba tey mu tudd ak baax ndax bu dee ku xàmmewul man de ah diw kat bawul diw ndax ma koy ma nga fay dem nangam ak nangam waaye su fekkee kooka dafa lam lam war a séq ak moom defu ko kooka ku ko balay fekk masalan boroom xam-xam bi yow mi nga xam ne kuy sàkku xam-xam nga li nga war a séq ak moom mooy di jàng ci moom di ko laaj waaye su fekkente ne séqatoog moom loola kon doonte yaa ngi séq moom leneen yaa ngi koy seetsi wala yaa ngi koy gunge suy dem waaye doo jàng ci moom doo ko laaj kon yow hijran la ko xajuru nga ko ba nga ko ndax nga war a séq ak moom séq ko kon danañu njëkk a leeral lenn ci li nga xam ne ab jullit bu jàpp alquranul karim dana ko ci jële maa lil muslimi min alquranil karim ak maa lil quranil muslim maanaa li nga am ci alquran ak li alquran am ci yow parce que jote bu nekk loolu la am na loo xam ne am nga ko ci kii ngay joteel ci ay xuquuq yoo xam ne soo séqeeg moom war nga caa jot muy ay cër ay sañ-sañ waaye am nga itam nag ay waajibaat muy ay war-war yoo xam ne dana la war yow itam ci sa diggante ak moom ndax léeg-léeg nit bi dagg dara alquran lan la ci ki ko jàpp di jële ki jokkoog moom la ca jiitu mooy alhuda te alhuda mooy safaanu ab dalaala ak njub mooy safaanu ak cànkute ku nekkul ci njub gindiku li muy tekki mooy da sànk sa borom bi ne fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabicuuna ahwaahum wa man adallu mimman ittabaha hawaahu bi gayri hudan min allah amul ku gën a sànq koo xam ne ak njubam la topp ak bakkanam bànneexam la topp bàyyi njub gu jóge ci suñu borom tabaraka wa taala kon alquran borom bi melal ne ko ne hudan lil muttaqin alquran bi njub rek la feexe waaye nag ñeel koo xam ne ragal na yàlla alxuraan ji mooy tege ci yoonu dëgg mooy tege ci yoon wu jub wi nga xam ne moo jëm aljanna yahdi ila alxaq wa ila tariqin mustaqim suratul ahqaf yahdi ila alxaq kon ko jàpp alxuraan daf lay teg ci yoonu dëgg teg la ci yoon wu jub borom bi daan wax ne xad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin yahdi bihi llahu man ittaba'a ridwanahu subul assalaam téere bii ci la suñu boroom tabaraka wa taala di gindee ku ko topp teg la ci yoonu mucc yooni mucc wa yuxrijuhum min azulumaati ila annuuri bi idnih wa yahdihim ila sirati almustaqim ci la leen suñu boroom di génnee ci ay lëndëm yóbbu leen ci leer ci la leen di gindee teg leen ci yoon wu jub yi nga xam ne mooy siratul mustaqim borom bi delloo xam ne wa kadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliman walakin jacalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min cibaadina wa innaka la tahdi ila siraatin mustaqim surat suñu borom wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko wax yu naa la ruux alquran ruux la ni nga xamante ne yaram bi noonu lay dunde ci ruux noonu la ruux googu moom itam dundewaat ci alquran mu ne ko xamoo woon lan mooy téere bi xamoo woon lan mooy ngëm waaye alquran def naa ko nuuran nahdi bihi man nashaa'u min ibadina leer la goo xam ne dama ciy gindi ku ma soob ci sama jaam yow nag wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim yow day da nga tegtale wane yoon wi nga xam ne mooy yoon wu jub bi di siratal mustaqim kon awalan li ñu njëkk a ci alquran mooy alhidaaya al hidaaya te mooy safaanu dolaala il hidaaya ci lépp sa mbirum adduna ak sa mbirum alaxira lenn lu nekk nga jaar ca sa yoon wa ca jub afa man yamsi mukibban ala wajhihi ahda am man yamsi sabiyan ala siraatin mustaqim ki nga xam ne dafay dox rek xamul fu mu jëm fu mu dem ba boppam mbëkk fenn rek moo xam ne fii du yoon mu wëlbati ko waat jëmaat feneen mu ne ndax kooku moo gindiku wala ki nga xam ne moom day dox dox bu jub jaar ci yoon woo xam ne wu jub la woo xam ne xam ne fi mu jëm ñaareel ba lañ ciy jële mooy arrahma wa innahu la hudan wa rahmatun lil muminin alquran jub la feete ak jërmande ci koo xam ne gëm na yàlla borom del wax ne haza basairu linnas wa hudan wa rahmatun li qawmin yuqinun alquran jii ab tegtal la ab gisukaay la ci nit ñi alxuraan soo ko jàngee te xam ko te gëm ko te topp ko day mel la yor nga boo xam ne moo lay won fi ngay jaar qad jaakum minallahi nuur nuur la nuur mu ne waaye njub la feete ak yërmande ci nit ñoo xam ne am nañu yaqiin am nañu kóolute bu wér ci li alquran ji di wax bokk na ci alquran li ñu ciy jële mooy as sifaat ashifa mooy ak wér du ko tuddee faj ndax faj ci baatu wolof bi li ngay faj mën naa wér mën naa bañ a wér wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifa la waxul ma huwa ilaaj mais shifa la day wér mu ne wàcce naa ci alquran loo xam ne dafay wéral wa rahma lil muminin yërmande la ci ñu gëm yàlla waaye wala yazidu zalimina illa xusaara dafay wéral feebaru xol fi qulubihim maradu feebaru xol te ba ci gën a garaaw di al kufru weddi ak as shirk bokkaale ak as shakk ñàkk am yaqin di sikki sakka al kibru yépp ay feebari xol la yoo xam ne alquran da koy faj naka noonu itam dana faj feebari yaram ca na xam ne noona lañu ñu koy jëfandikoo ci ñu dëppoog sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu defe naa ne dana am beneen waxtaan wu ko wu ko leeral waaye daal sifa la ci lépp moom alquran borom bi dala wax ne qul huwa lilladina amanu hudan wa shifaa waxal ne moom alquran jii ci ñi gëm yàlla ak njub la waaye saafara la ak wéral la ci lépp walladina laa yuminuuna fi aadaanihim waqrun wa huwa alayhim ama mu ne ñi nga xam ne nag gëmuñu day moom nga xam ne seen nopp yi dafa mel ne ab saaña ci nekk ñooñu alquran ak ngumbale ci ñoom alquran bokk na ci la andil nit mooy jëlle ko ci ay lëndëm lëndëm rek lu bari la moo tax nga gis ñu koy jàmxoo waaye noor moom dëgg moom genn rek la mooy leer borom bi ne kitaabun anzalnaahu ilayk li tuxrija annaasa min alzulumaati ila annuuri bi idni rabbihim ila sirati alazizi alhamid surat ibrahim mu ne ko téere la boo xam ne dama ko wàcce ci yow kon lan lan moo tax ñu wàcce ko li tuxrija annaas parce que kon alquran dafa am fu mu war a jële nit ñi am fu mu leen yóbbu waaye du dañ koy jàng rek waaye mel nanu meloon ci sunuy aada sunuy baax suñuy doxaleen dara du ca soppiku déedéet li tuxrija naas ngir nga génne nit ci ay lëndëm lëndëmu kéefër yóbbu leen ci leerug ngëm lëndëmug bokkaale yóbbu leen ci leerug tawxiid lëndëmug sikk andi leen ci réer andi leen ci leeru xam alxuraan foofu lay jële nit ki ci lëndëm lëndëm yooyu yépp andi na ko ci leer bi nga xam ne mooy leerub alxuraan alxuraan bokk na ci li muy jariñ ki ko jàng te di ko gëm ko te di ko jëfe mooy dana ko may daraja yu kawe ci aljanna bu ëllëgee yonente bi alayhi salatu wasalaam mi ngi wax ne yuqaalu li saaxibi alquran iqra wartaqi wa rattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilak inda axiri ayatin taqra'uha boobu ci sunan abi daawud yonente bi alei salatu wasalaam ne dañuy wax ki nga xam ne daf daan jàng alquran te di ko jëfe bu ëllëgee bu ñu duggee aljanna daf koy wax ne jàngal te yéeg nga continuer di jàng comme li nga daan jàngee ci adduna kama kunta turattilu fi dunya mu ne ko sa dëkkuwaay ma nga ca aaya ba nga mujj a jàng ci alquran foofa la sa dëkkuwaay di nekk kon aljanna dafa am ay darajaat xurafun min fawqihaa xuraf xurafun min fawqihaa xuraf ay étage la étage yooyu nag la yéegal mooy alquranul karim ji ngay jàng day ne la ba ca ba koy doxal alquran la koy jàng rek muy dem foo jàngee tul mu taxaw kon jàng alquranul karim dana yéegi nit ki ci daraja yu kawe kawe ci aljanna bokk na ci li muy may nit ki mooy alxayriya te mooy ak ngëneel goo xam ne kiy jàng alquran di ko jëfe di ko jàngale dana ko am di ko jàngale nag nekk tekkiwul ña koy jàngale ca daara ya rek nit ñi di ko mokkal waaye mboolem kuy jàngale ci diine rek kuy jàngale alquran la kuy jàngale ci diine moo xam imam bay xutba la moo xam tas bay jàngale la ca barab ba muy jàngale ñooñu ñëpp la ñu jàng alquran la ndax même bu demee ba tudd yeneen i xam-xam ak xam-xam yooyu yëpp ci alquran la soqi ko kon lu waay di jàngale ci diine rek yaa ngi jàngale alquran yonente bi alayhi solo mu ne xayrukum man taallama alqurana wa allama xayriya boobu nga xam ne moom la doomu aadama yi wut ci kaw suuf oo gis ku nekk bëggu la bokk ci ñu yées waaye ci ñu gën la bëgg a bokk ñii wut alal bëgg a bokk ci ñu gën a tax ñii wut nguur bëgg a bokk ci ñu gën a tax ñii wut ay daraja bëgg a bokk ci ñu gën a tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ngëneel li nag fi mu nekk xayrul bariya yooyu suñu borom di wax la koy joxe mooy jàng alquranul karim ba noppi di ko jëfe di ko jàng kon yooyu lu ñuy jële ci alquranul karim amaa lan nag mooy li nga xam ne moo war jullit bi ci alquran foofu nag la ñuy xamee kon ku ko jokk ak ku ko jokkul lan moon war suñu digganteeg alquran alquran wax nañu moom li mu yoral li mu yoral moom alhuda ak njub الرحمة الشفاء الخروج من الظلمات إلى النور الدرجات الرفيعة في الجنة والخيرية loolu lenn la ci yi nga xam ne alquranul karim yoral nanu ko amma nun nag nan la ñuy def na ba jot ci yooyu lu nu war a séq ak alquran nun ba jot ci la ci jiitu muy gëm ko muy dëggal ko gëm ne téere bii ci borom bi tabaraka wa taala la wàcce walladina yuminuuna bima unzila ilayk wa ma unzila min qablik wa bil axirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika hum al muflihun yuminuuna bima unzila ilayk ñi nga xam ne dañuy gëm dañuy dëggal lii ñu wàcce ci yow ak li ñu wàcce woon ci ñi la jiitu woon am yaqiin ci ne alaxira day ñëw ñooñu day ñu ngi ci njub gu bàyyi ko ci borom te ñoo ngay tax boobu bi daan wax ne wallazina amanu wa amilu salihat wa amanu bima nuzila ala muhammadin wa huwa alxaqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha baalahum wa amanu bima nuzila ala muhammad kon lii ñu wàcce ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ ko war a gëm ne borom bi tabaraka wa taala moo ko wàcce ci moom waaye dëggal itam mboolem lu mu andi ndax nee na wa xaq lii ñu wàcce ci moom moom rek muy dëgg de gu bàyyi ko ci borom bi tabaraka wa taala ñi ko gëm nee suñu borom far na seeni bakkaar te yéwénal na seen mbir yépp kon la ci jiitu muy gëm ko alxuraan ku ci ku ko gëmul doo ci mën a jariñ kuy gëm gëm gi moo jiitu ñaareel ba nag tilaawatuhu xaqa tilaawa di ko jàng nag dëgg dëgg jàng nag dëgg dëgg jàng alladina aataynahum alkitaba yatluunahu xaqa tilaawati ulaika yuminuuna bi kon ndeke lii firndeel na gëm nga alquran nga nangoo sonn ca njàng ma sonde njàngoom alquran ma jàngum alquran fànnu xam-xam la xaas boo xam ne dañ koy sonne jëmmi njàng mi rek fànnu xam-xam la loola kon ku ko sonnewul dana néew nga mën koo rafetal ni ñu ko waaye fa la jàpp ne rek moom boo feree ijji rek daanaka jërul ngay jàngi ci keneen mën ngaa jàngal sa bopp dafa demewul noonu alxuraan dafa am lu ñu ko war a jàngee moo tax Muhammadul Jazari wax ne wal axdu bi tajwiidi xatmun laazimu nga xatmun ba noppi ne laazim nee na lu war la te war la goo xam ne nag dafa takkoo dafa continuer doone man mën naa ko rek bu may jàng ca daara ja wala bu may jàng feneen danaa ko tajwid waaye bu ma yàkkamtee wala may jàngee feneen nu ma neex laa jàngi déedéet nee na googu daf laa takkoo fépp fooy jàng alquran rek da war a rafetal njàngin mu ne man lam yu jawidil qurana aafin yeneen nu safee man lam yu saxixil quran la ñuy wax ay benn la mu ne kon ku rafetalul wéraloo ni ngay jàngi alquran yaa ngi am bakkaar yaa ngi am bakkaar mel na nga nag ah waaw lu mu ne la li annahu bihi l ilahu anzala minhu ilayna wasala mu ne la ci tajwid googu rafetal googu noonu la ko yàlla wàcce noonu la ko yàlla wàcce te noonu la ñu ko toxale itam nag noonu la ko yonente bi alayhi salatu wasalaam taatane noonu la ko jàngale saxaaba saxaaba yi lañ ko jàngale taabi'oon yi taabi'oon yi noonu lañ ko jàngale taabi'u taabi'oon yi noonu lañ ko jokkalante ba kon nag amuloo droit mu egsi yow nga soppi ko li bihi l ilahu wa hakada minhu ilayna wasala borom bi digle ne warattilil qur'ana tartila na rafetal ni ngay jànge dellu ko wax ne laa tuxarrik bihi lisaanaka li taajala bi xam nga fii ci nun li ñuy faral di taggee ku man alquran mooy nu mu mën a gaawee jàng alquran ci naafila yi ku ci daan gën a gaawug naafila rek moom la tagg wax ne moom moo gën a mokkal bu dee ci kaamil bi ñu ne la moom ci ay waxtu yu néew rek mu wàcceel la kaamil defe na loolu aw tagg la te loolu suñu borom tere ko laa tuharrik bihi lisaanaka li taajala bi ratatatatat ji ngay def loo koy doyee li taajala li taajala ngir nga gaaw ñu ne ab dikkeem moom moom dikki bi du taxaw kon loolu du xaqu tilaawa kon sonne rafetal njàng mi loolu suñu première jotala ak alquran loolu ku ko bàyyi rek commencé nga hajjuru alquran hajjuru alquran foofu la tàmbalee koo xam ne jéemoo dara ci njàng mi parce que dañuy wax ne tajwid jàng atte yooyu moom fardu kifaaya la waaye al amalu bihi moom fardu ayn man ngaa bañ a xam ida jaa lan moo tax ñu def ko noonu xamoo nu mu waaye soo def ko rek moom am am naa nga bañ a xam nu ko xamul ni doo lan moo tax mu guddal ko noonu ak lim def nu mu tudd madd laaj ban façon laa laaj yooyu yëpp boo ko xamul waaye yow foo ci egtee koy jànge yow xamoo leneen ok baax na waaye nag soo ñëwee soo ko jàngewul noonu nag da ngay am bàkkaar ñaareel ba suñu digganteeg alquran al istimaau wal insaatu inda tilawati déglu looy def ba dégg ñuy jàng alquran war nga déglu déglu tekkaaral nag wa ida quri'a alquranu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun gis nga quri'a rek la ñu waxuñu sax waxuñu la ka koy jàng ku mu waaw mabniyun lil majhul waxuñu sax doonte ban da koy jàng sax rek quri'a alquran quri'a alquran wa ida quri'a alquran lañ la suñu jàngee alquran ka koy jàng moom laa yow sabab waaye alquran lay jàng rek kon fastami'u lahu kon su ñuy jàng alquran dégluwoo ko loolu aw xeet la ci dagg alquranul karim xeetu dagg alquranul karim te da nga koy déglu nag déglu cellantu xam da nga koy bàyyi xel da cell di ko déglu borom bi ne laallakum turhamuun ndax ñu yërëm leen leneen la ca def ci suñu digganteeg alquran fahmuhu wa tadabburuhu boo demee ba mën a rafetal njàng mi nag des na beneen étape nag mooy jéem a dégg aaya yi ko dégg dégg ko ci euh, làkk wi mu dikkee di làkku arab waaye dégg ko ci itam na ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam leerale borom bi ne kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun li yadabbaru ayati wa li yatazakkara ulul albab nga laam bi laamu taalil la kitaabun anzalnaahu ilayk téere bi dama ko wàcce ci yow mu barkeel lool waaw lu tax lan moo tax ñu wàcce ko li yadabbaru ayati gis nga settantal ayam yi tadabbur beneen mbir boo xam ne ma nga sa foofu fahmu ndax mën nga dégg dara waaye nag tadabbur di seetlu di tadabbur mooy di settantal di taamul di kóotal sa dëgg ci waxi borom bi tabaraka wa taala di ca bàyyiwaat xel bañ koo romb rek romb yinu kaw rek noonu jàll waaye taxaw ca bàyyi ca xel li yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu la julli benn bis guddi ba agsi ci in tuazibhum fa innahum ibaduk wa in taxfir lahum fa innaka anta al azizul hakim mu taxaw di ko baam rek di yëkkat di yëkkat ba ñu noddu fajar boo xoolee wax boobu xool ko ci biir mënul xóote xoola googu maam soo leen mbugalee kenn du ci wax dara ndax say jaam lañ in tu'azzibhum fa innahum ibaduk wala loolu kenn du ci wax wa in taxfir lahum soo leen bàyyi fa innaka anta al aziz al hakim wax boobu ni mu xóote soo seetee maanduk suñu borom tabaraka wa taala gi ci ne ak itam ñàkk gi kenn mën a dugg ci ay mbiram kenn mënu ci benn intervention loolu boo ko seetluwaatee rek def tadabbur boobu day gën a yokk iman bu baax a baax a baax a baax borom bi ne afala yatadabbaruuna am ala qulubin aqfaluha ah nit ñi ndax dañoo settantalul alquran ndax alquran ku ko settantal rek faw da nga jaar ci ndax boog xol yi dañ koo xombe xol yi dafa tëju ndax xatama allahu ala qulubihi xol yi am na xol yu tëju loo xam ne moom alquran lu ñu ko jàng-jàng-jàng du dugg ci seen biir xol dugg ci seen biir xol Sëriñ Tuubaa mi ngi tudd ci benn téeréen ay mbir yoo na day tëj xol ba alquran du ci dugg day tëj xol dan ma saddani anhu asyaun tuaddu ila sabi rasaili saddat kulla man farima zanbun wa kibrun wa israarun ala laibin xubbun li dunya ictimaadun lil wara nahama doful yaqin alladi sadda albariyata an tawakkulin wabtidaau tarku zi ihtimaam zanbun bari bàkkaar ay bàkkaar ku ko bari la tuuboo ko alxuraan lu dugg sa xol wa kibrun ku rëy rëy mooy kuy gàntu dëgg day dëgg dëgg ba noppi bañ innahum kaanu ida qiila lahum la ilaha illa allah yastakbiruun wa yaquluun a inna la taariku alihatina li shaa'irin majnuun yastakbiruun wa israarun ala laibin ku nóor ci foof koo xam ne ko rekk ne ci boppam foofu alxuraan du ko dugg xubbun lid dunya koo xam ne adduna rek la bëgg adduna rek rek rek moo nekk biir xolam ay dëkkukaay yu rafet waruwaay yu rafet sol gu rafet alal kooku itam alquran du ko dugg mu ne itimaadul eh, lil wara koo xam ne sa mbir yëpp da koo wéer bindee fii wóolu wakkirlu wa ci yàlla waaye nit ñi nga wéerlu loolu lépp nit nga ci yaakaar ba ca des mu ne doxul yaqin nee na doxul bi nga xam ne moo dox diggante nit ñi ak tawakkul doxul yaqin allati saddal bariyata an tawakkuli ba ca mujj nag mu ne wabtidaaun kuy topp bidaa koo xam ne mubtadaa la li muy jëf lépp ay bidaa la kooku it alquran du tudd kon aqfaaluha jooju yooyu ci la bokk leneen li nga xam ne war nañ koo tëq ak alquran mooy ab taassuru bihi mooy ñu jeexitalu ci jeexital goo xam ne dana ñu yëbbe am xusoo yëg ak ragal yàlla sunu xol waaye dana ñu yëbbe sax ci jooy dana ñu yëbbe bi kat joxe na misaal ci wujubu taassur boobu ni mu war a jeexitaloo ci alquran mu ne law anzalna hada alquran ala jabalin la raaytahu xaasian mutasaddian min xasyatillah kon nag wa tilka al amsal nadribuha linnas laallahum yatafakkarun suratul xasr nee na alquran ji bi moo ko wàcce woon ci doj nee na doj woowu da nga ko gis muy toroxlu di set moom doj woowu di xar ngir ragal yàlla moo tax borom bi tabaraka wa taala ñum doon nuróole seeni xol ak i doj ba yàgg sax mu ne aw asaddu qaswa seen xol yi sax moo gën a dëgër aw doj ndax wa inna min al xijaarati lamma yatafajjaru minhu al anhaar wa inna minha lamma yasaqaqu fa yaxruju minhu al maa wa inna minha lamma yahbitu min xasiyatillah kon doj tax léeg-léeg mu réagir nee na mu am taasur moo tax borom bi ne alxuraan bi bu ma ko wàcce woon ci doj da nga ko gis muy fett waaw fan yow nit kon dojale ëpp doole ko xanaa moo la gën a wow te nee na bu wàccoon ci moom da nga gis muy xar borom bi ne allahu nazala axsana alxadis kitaaban mutashaabiha masaniya taqshairu minhu juludu alladina yaxshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dicri illah dalika huda allahi yahdi bihi man yasha wa man yudlil llahu fama lahu min hadi mu ne borom bi moo wàcce ahsanal xadis wax ji gën a rafet gën a baax ci wax yi mooy alquranul karim nee na téere la boo xam ne yaramu ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla daf ci daw bu ñu jàngee alquran taqsha'irru minhu juluudu alladina yaxshawna rabbahum seen yaram day daw kon xusoo bi ca xol ba la war ne waaye dana feeñ sax ba ci cër yi ci bit nit ki mënatu la téye boppam suma taliinu juluuduhum bu ca jógee yaram yi na betax mel ne ku nagam ndax taasub bi mu defoon ci alquran nag daraja bu kawe la mu ne dalika hudallah loolu njubug suñu borom tabaraka wa taala